yow tëja sa làmmiñ yaa ngi jaxase. ziar si français la bon maa ngi leen di bëggee ah euh, dafa am ku ma woo mais ne ma Kona ah. loo xam ci li Bassirou le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Faye def mooy acte bi ci dem ci kilifa diine yi daal di leen nemmeeku ziar leen man de li ma ci gis mooy. président de la république warta suufeel boppam ci kanamu kenn ndax di représente la république ma ne ko yaa rafetub lay ma ne ko yaa rafetub lay mu ne ma xam naa comme ñun ni ñu jàppee woon suma genre yi nga xam ne ñu ngi doon wax dëgg ci côté yëpp pratiquement fu ñu ko mënti gis fee yi fu ñu ko mënti gis dañ koy relater wax ci sunu xalaat ñu gën ñu ci ràññee que ni côté kilifa diine yi bokk naa ci ñi nga xam ne dañ ciy wax seen xalaat par rapport ak ñoom seen doxalin mu doon loo xam ne bariwul lu muy am si Sénégal ndax kër yu bëri ak ñiy xalaat ci la ci ci politique bi lu bari côté boobu dañ fay esquiver dañuy daw dañuy waaf duñ bëgg a wax jëmale foofu man nangul leen ko ndax côté boobu dafa sensible pour nga wax fa ñu am compréhension wala perception bu positif day jafe parce que dañ leen a teg foo xam ne doy na waar ak ñi nga xamante ni aussi ay fanatique lañ man nangul leen ko waaye nag man day konaa waxuma sax kilifa diine waaye kilifa yëpp ci àddina laa bëgg ñu weg leen kon man dama ànd ci son excellence la Bassirou Diomaye Faye li mu def man dama jàpp ni ñiy wax loolu mooy ñi nga xam ne ñoo ko daan wax ni salafiste la man dama japp ni ñi wax ni lan motax mu dem ci kilifa diine yi di sukk ak araam en tant que président de la république moy ñoñu ko doon wax ci campagne bi bëgg a génnee kaso léegi yaag Ousmane Sonko demo len ci kilifa diine yi kon da ngeen a suñu kilifa diine yi moy ñi nga xamanteni ni ñoo ko doon wax ni yeen wa passif seen xalé yi ak yeen yéenay saga kilifa diine yi su ngeen falo da ngeen fi jëlé kilifa diine yi ñoñu bu la kenn nax ñooñu ñoo lay woo yow Kona ah, parce que yaakaar ni da ngaa am objectif bu ñaaw ci côté kilifa diine yi wala ñu lay woo yow mi nga xam ni yaa ngi naan wax dëgg jëmale ko ci kilifa diine yi ñu la koy wax pour lan pour nga nekk ko génn naan waaw Bassirou Diomaye Faye lim def war koo def ndax moom il est le président de la république nee na nii naa dugal la ci kàmb gi. nee naa la gars yi fi mu toll loolu rek lañ am pour opposer ko mooy dóor ñu dóorante ñu sunu kaw mooy jël ñu. jaxase ñu suñu biir kon nak encore une fois son excellence le président de la république Bassirou jamal fay li nga def dula la dara ndax kenn ku nekk ci ñom mëna na jur wala mu nekk sa mam ñom nak seen taxaway bañu ñu ñepp gis nañ ko waye yow def nga la la war te ku def la la war wacc te lepp lo xam am na rafet ma Bassirou jamal yi son excellence So amul won rek dina ñaaw def ji nga def def ji dafa rafet ndax ay maglan ay kilifa lañ doon ay kilifa kon warmal len te nuyu len tatagal len tradition la ci Sénégal waxuma la république bi ma wax de mais tradition la te nag tradition yu rafet yi nga xamanteni yakul dara ci sunu nekkin yakul dara ci sunu dundin war nañ ko mën continuer te yaakaar na ni lamu defal euh imam ba ca grande mosquée loolu bu rafetee rek li mu defal xalif généraux yi war naa mën a rafet te pourtant la mu defal grand imaamu grande mosquée ñëpp ñoo taxaw rafetlu ko kon tey bu demee sukk ci kanamu almuntaxa Bachir dem sukk ci kanamu Serigne Mbaye Sy Mansour et cetera wallahi war nañ koo mën a rafetlu comme nañ rafetlu woon loolu bu fekkee ni dañoo positif bu fekkee ni li ñuy wax dëgg la ci ñun Sénégal rek moo ñu ñor bañuñu kenn contre ñu kenn xeexuñu kenn waaye dëgg nag fu mu mën a jóge fu mu mën a nekk ku mu mën a ku ko gunóo mën a sant ku ko mën a def ku la mën a jur dinañ la ko wax ci yar ak ci teggin kon c'est le Sénégal qui gagne encore une fois yow a sa làmmiñ yaa ngi jaxase jaxase baaxul walla del sport del daw del sport bal xëy suba su xol bi bon bi del xëy suba di daw longue distance loo ay duwu soo dee daw dina féexal sa xol ba nga bàyyi jaxase bàyyi iñaan bàyyi wax lu bon bàyyi ruutale jërëjëf c'est le Sénégal qui gagne son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Jahar Faye